Euh, commission bi ñoo fi daje tey def atelier lancement processus bi nga xam ne dañuy def benn rapport de contribution euh, si politique nationale développement bi ñu tàmbalee bind Sénégal euh, mu ñu méngale ko ak PAP 3 comme PAP 1 beeg PAP 2 bi jeex na muy PS1 PSE2 ñu jublu si beneen phase muy 2024 2028 Euh, looloo tax tey acteur société civile daje fii euh, en collaboration ak DGPPE def atelier lancement bi non seulement pour informer société civile bi ak euh, citoyen yi mais aussi pour gën leen xamal processus bi naka la tëddee processus bi nguur gi di doxal pour élaborer plan d'action plan PAP3 bi ak PND bi nag fan lañ ci toll ñu wax leen ko ensuite informer leen ci liggéey bi ñu war a def pour ñu gën si mën a engagé wu. Ah, ak stratégie yi ñu teg euh, bokk na si euh, nañu def ay euh, ay waxtaan ah, ay consultation si biir acteurs société civile yi pour xool def def non seulement diagnostic li ñuy wax diagnostic PAP 1 ak PAP 2 bi bi weesu ñu xool doxalin bi naka lañ ko defee saytu ko ensuite def ay ay li ñuy wax ay forum. au plan communautaire avec les citoyens ngir mën a am perception nit ñi bu ñuy wax perception mooy naka lañ gisee euh, projet ak programme yi nguur yi doxal nguur gi doxal ci seen gox ak goxaat yi yooyu tamit buñ ko amee nañ ko boole si rapport bi mbur euh, mun a génne aussi ay recommandation yoo xam ne dina méngoog euh, bëgg-bëgg yi nga xam ne zone yi ak population yi am nañ ko ngir ñu mën a am politique de développement 2024 2028 bu mucc ayib bon plaidoyer yi ñuy def bon bokk na si aussi parce que bu ñu fàtte ne bi ñu nekk nii PND daa nekk si benn contexte contexte boo xam ne réew yi dañoo juge si ay jafe-jafe di si guerru Ukraine bi ak euh, coronavirus ak contexte Sahel bi bien que Sénégal am na jéego yu mu si def en terme de croissance récession yi ñu doon xaar Sénégal mujj ko mujj na relever défi bi si côté boobu mais ba léegi ñu Euh, si exploitation pétrole gazière bi tax na ba ñuy xaar ay taux de croissance yu mag yoo xam ne war na dem ba deux chiffres dix virgule cinq pour cent en deux mille vingt quatre donc loolu euh, société civile euh, mbëbëtam bu si gën a mag mooy ñu fexe ba croissance boobu mu inclusive nekk un croissance une croissance inclusive et durable ba nga xam ne population yi jafe-jafe yi nekk dina dina gën a dina gën a mën a wàññeeku te am nañ si yaakaar parce que processus bi ni ñu ko tëralee euh, boole si acteurs yëpp jox si société civile ay rôle ba ñu mun a présider commission bonne gouvernance paix et institution paix et sécurité yaakaar naa loolu yëpp dina tax ba ñu mun a am document de politique bi nga xam ne euh, dina mucc ay bon ñun li ñu li ñuy li ñuy nara indi bu ñu fàtte commission bi aussi euh, depuis 2000. depuis bi ñu commence l'avènement de la déclaration du millénaire en 2000 bi ñu commencé bind ay DSRP Sénégal commission bi société commission nationale société civile mu ngi liggéey ak bi di ko gunge si pro si formulation yi mooy bi ñuy bind politique yi moo xam DSRP 1 DSRP 2 DPS SNDS ba si PAP 1 ak PAP 2 yëpp commission bi mooy gunge gouvernement bi si formulation bi si ay contribution mais aussi si revue annuelle conjointe yi donc bi nga xam ne at bu ne dañuy saytu doxalin bi yooyu yëpp commission bi moo ci moo ci gunge gouvernement bi di si indi ay contribution ah, di ko jàppale ngir processus gouvernance bi gën a mën a euh, mucc ayib li ñuy xaar ci waa société ko comme ñoom yàgg nañ di ko def mooy di ñu jàppale ci formulation bi di joxe ay orientation yoo xam ne euh, dina tax maanaam képp koo xam ne sénégalais nga suñu dérouler politique yi ak projet yi réforme yi nga mun nga mun ci gis sa bopp comme ni mu ko expliqué nag maanaam lii du mbiru direction générale planification kese du mbiru ministère de l' du plan et la coopération mais mbiru Sénégal yi yëpp la ak partenaires ñi fi nekk muy société civile partenaire au développement partenaire technique et financier mooy secteur civil parce que ku ci nekk au mën nga am loo xam ne sa gisin la gisin boo xam ne suñ ko doxalee noonu Sénégal dina gën a jëm kanam te li ñuy xaar daal mooy ñu defal ñu ay recommandation yoo xam ne recommandation yii dina tax euh, maanaam ku nekk ci Sénégal yi mën a gis sa bopp ci doxalinu euh, gouvernement bi